mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen ànd ñun si rajo Rewmi FM comme nañ koy defee dimanche bu jot fii ci rajo Rewmi FM tey nag ñu am ci mbégte bu yaa di ci dalal ki nga xam ne nag moom moo di directeur bu cabinet bu commune bu euh, yëmbal Sud mooy ki nga xam ne moo di Abdoulaye Sagna moom la ñu am tey mbégte di ko dalal ci émission gox bi monsieur le maire wala buñ ko mënee wax noonu sax euh, monsieur Sagna ñu lay nuyu di la sant di la gërëm bu baax ci ni ñu nangulee invitation bi. jërëjëf Mbemba maa ngi lay sant di la gërëm ginnaaw bi ma la nuyoo. may ma ma nuyu euh, mbooleem auditeur u mi FM yi ñuy déglu rawatina. Mhm. askanu yëmbal sud bi ma bàyyeekoo di wax ci seen tur. ci mhm. ndigalu monsieur le maire Bara Gaye mhm. di euh, nuyu euh, askanu Sénégal yëpp. Mhm. di la sant la gërëm encore une fois laata ñuy xuus ci euh, waxtaan bi nga xam ni moom moo jëm ci mbirum découpage bi ñuy waxtaan mais dañ koy doore gis nañ fi njiitu réew mi fan yi la jógee tournée économique mel ni dooraat na li ni mel ñeen ñi di wax mbirum politique yow en tant que tey bokk moo mel nan ngeen ngi jàngatee jàngat bu njëkk bi lan la tey. jërëjëf balaa may tontu loolu dama lay ñaan nga may ma yeesal suñu njaal ci ay suñu kilifa yu ñëw ñàkk. Mhm. semaine bi passé ci biir yëmbal sud. muy bàyyi euh, Lamine Diop nekkoon imam mhm. nekkoon patriarche su dëkk bi moo fa gënoon a mag. Mhm. yàlla moom ko euh, waaye tamit bàyyi Daouda Diop nekkoon tamit euh, patriarche su famille Ndiobène bu yëmbal sud. nekkoon ko am taxawaay bu mag a mag a mag ci biir commune bi. loolu moo waral bi monsieur le maire defaree place publique bu nekk yëmbal mu tuddee ko ko. ndax ku xam na bépp tere boo xam ne bii kilifa diine yi mos nañ koo tere foofu ci yëmbal mm-hmm. Mm-hmm. moom moo ci am taxawaay ba jëmmal yooyu tere mm-hmm. moo tax keroog ci dëj bi wax dëgg yàlla euh, njabootu Seydina Limaamu yëpp ñëw nañu sargal ko ñëw taxawu ko waaye tout la collective toute la collectivité lébu également ñëwoon nañu ci biir euh, dëj bi euh, ak la présence de du grand sëriñ de Dakar El Hadj Abdoulaye Makhtar waaye démb it caare ko am nañ naqar bu mag suñu benn rakk bu ñu wax Ismaïla Sambou mhm. nekk un jeune policier en formation mhm. yàlla moom ko tey ci naqar googu la ñu yeewoo mhm. ñoo ñëpp ñu ngi leen di ñaanal maa ngi leen di jotali ñaanu euh, njaalu monsieur le maire Bara Gaye ok yàlla suuf oyof seen kaw ok ñu bàyyi la nga suuf la tuuti gis nañ itam euh, comme ni ma la koy waxee sànq rek euh, li nga xam ne moom moo jëm ci tournée économique bu njiitu réew mi Macky Sall fan yi weesu rek la ko daal di amal ci booru diggante Kédougou Kaffrine nak Tambacounda ba tax na rek loolu yëpp mu daal di koy amal li nga xam ni moom moo jëm ci tournée googule euh, ci conseil des ministres bi nga xam ni weesu nañ ko itam annoncé waat na itam beneen tournée boo xam ne dina la ko amal ca diwaanu maatam loolu lan ban mooy sa lan mooy sa bu njëkk ci tournée njiitu réew moomu. waaw réaction bu njëkk mooy réaction bi nga xam ne Sénégalais yëpp am nañ ko ci. mooy mooy tournée politique la. donc mhm. dëgg yàlla kenn ku ne xam. ne sa gis-gis ci sama gis-gis jàpp naa ne Sénégalais yi ëpp loolu la ñu gis ndax tournée. économique euh, laajul folklore bi nga xam ne moom la ci moom la ci boole. Mm-hmm. laajul vraiment li nga xam ne day nduroog meeting électoral. Mm-hmm. te ku ne xam ne popularité am vacillé na ci jamono yi nga xam ne moom la ñu jóge mm-hmm. nit ñi am njàqare nit ñi am mbetteel nit ñi am vraiment euh, ak suur ci ni nga xam ne noonu la yore réew mi. jàpp naa ni li occasion la pour moom xëy na. mun na nattaat popularité mu jéem a remobiliser les troupes mhm. ginnaaw bi mu jàppee datu élection mhm. ginnaaw bi mu defee ay renouveau redécoupage yooyu mhm. yëpp defe naa ay calcul politique la donc tournée yi dafay dem pour yeesal ay banqaasam pour waajal lu jëm ci élection yi eh, nit ku dem jug njiitu réew bi jug dem di inaugurer ay hôpital yi nga xam yu am solo euh, nga ne loolu politique la itam nee na itam dafay njot la muy saytu li nga xam ni moom lay diggee ci li nga xam ne ci goxee goxaan mu dem di ko saytu yéen ngeen ne politique la mais moom tournée économique la ko tuddee waaw da ko tuddee tournée économique waaye ci biir doxalin bi boo dee xool amul dara lu ci économique d'abord ci biir discours am sax gis nga lu bari ay discours politique la bu demee bay wax ay wàllu liste électorale yi benn liste mooy am du nangu ci léegi lii ñi nga xam ne am nañ problème nañ ko wax mu réglé ko jàpp ma ni loolu économique la leneen li si topp mooy fa demoon mhm. demoon na ma defoon na fa ay euh, conseil des ministres décentralisé mhm. li doon tournée économique dëggantaan mooy moom ak les euh, les services euh, de l'État qui sont déconcentrés ak les administrateurs territoriaux mhm. ñu daje def xayma ci li nga xam ne loolu la ñu diggoon askan bi mhm. fan lañ ci toll lan lañ ci réaliser ak li ci des ba pare ñu communiquer ak askan bi waaye mhm. jàpp ma ni dem inaugurer hôpital dem inaugurer ay tali loolu tournée économique la defe naa amoon na ay digg yu xam ne mi ngi woon fii évaluation dañ ko war a am donc évaluation boobu defu ko da cee jaar dem yoonam donc jàpp naa ni kon leneen lu mu fi mënti def rek mbiru politique amul sens te dama mën nañu kenn ku nekk muy yow di man ak sénégalais yi ñuy dëgg yëpp kenn ku nekk mën naa wax à naka la tournée boobu di demee ndax euh, li nga xam ne foofu lañ koy xaar ci mu indi réponse ci jafe-jafe yi nga xam ne askan bi am nañ ko mhm. mu indi réponse ci digge yi nga xam ne defoon na ko ci conseil des ministres décentralisé waaye tamit ci élection présidentielle yi ñu jógee defoon na ay digge yu mag a mag a mag mhm. fan la ci toll loolu rek moom mooy laaj bi nga xam ne moo ko waroon a yóbbu ñu def xayma mais amul benn xayma lu dul rek remobiliser ses troupes def meeting euh, mobiliser jox leen nopp bu baax bi. ok Abdoulaye Sagna mooy sunu gan moom mooy directeur cabinet bu commune bu yëmbal Sud tey mbirum découpage la ñuy waxtaanee mbirum découpage bi tey yéen euh, seen mairie ginnaaw ba mu jëkkee woon jot bataaxal bi da ngeen amal conseil mais seen conseil bi ñu ci bari ànduñu ci woon est-ce que mën nañ ñëw ci étape bi ba pare laata ñuy xuus ci mbir mi. waaw dëgg la étape bi du jafe ndax étape bi benn point kese la. ñun ba ñu dalee dégg projet bi ba léegi ñu ngi ko dégg ci benn visite bu président defoon Kër Massar ci wàllu inondation ñu koy xaar ci ay solution yu structurelles en termes d' infrastructure lu jëm ci noppal askan bi ci jafe-jafe ndox mi mhm. mu ne dina ériger Kër Massar en département man mu jaaxaloon ma trop parce que xamuma naka la érection wu département nekkee solution ci problème mu ndox ndax bari na ay département ci Sénégal yoo xam ne bii ndox maa ngi fa di xus mhm. yégal Kër Massar def ko département loolu a priori nekkul solution bi nga xam ne moom moo war a régler problème inondation mhm. Kër Massar mën naa des commune wala mu nekk village teewul ñu indi fa moyens yi war pour ñu régler saafara problème problème ndox mi kon jàpp naa ni loolu mhm. euh, plan la boo xam ne tegoon nañ ko bu yàgg te ñun xam nañ ci lu leer leer mhm. depuis 2014 na les responsables politiques APR yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Kër Massar ñooñu bu wéyal seen mandat bu jeexee nag ñu doog ko def mhm. loolu waroon naa ma am honnêteté wax ko askan bi moo gën muy jaare ci wàllu ndox mi mhm. li tax ma ne la indi processus bi jafewul benn étape la muy ñun bañ ko dalee dégg ba léegi benn acte rek moom moo ci boole les communes mooy le 8 mai bi passé mhm. le sous-préfet des ñaay demande au maire ñu convoquer le conseil municipal pour ñu waxtaane projet boobu conseil municipal bi wax dëgg yàlla ba ñu xëy si kenn ku nekk indi na document bi jàppoon na ni dañuy wax suñu xalaat dañ ñoo laaj suñu xalaat. mais ba ñu ñëwee ba sous préfet bi wax xamal na leen ni mën ngeen wax seen xalaat naam waaye seen xalaat tënkul ki nga xam ne moom mooy jël. mooy jël décision bi loolu. conseil municipal bi yëpp à l'unanimité ñaawlu ko loolu ndax du doxalin boo xam ne bi euh, doxalin bu jublu ci wegg. askanu askanu yëmbal sud. wegul tamit les autorités municipales yi fa nekk waaye teewul saisir nañ opportunité boobu pour waxee seen xalaat. parce que nag histoire dina retenir loolu ndax ñun yëmbal dañoo am histoire par rapport ak découpage électoral mhm. découpage euh, administratif mhm. réforme bi 1996 bi mu ñëwee dafa def benn découpage bu doy waar boo xam ne ña fa nekkoon seeni génération calcul politique la ñu defoon ba tax euh, yëmbal sud am jafe-jafe yi mu am boobu ba léegi mhm. loolu moo tax conseil municipal bi émettre ay réserve réserve bu njëkk mooy dañu nax ni commune bi dafa tuuti mi ngi toll ci deux virgule vingt huit kilomètres carrés commune bu sérieux warul mën a toll noonu rax ci dolli amul infrastructure du marché du usine du infrastructure boo xam ne bii may na ko mu am ay ay ay recettes yu ko mën a may mu moom boppam mhm. beneen bi ñu proposé ne nañu defaat beneen découpage ba won leen tracé bi nga xam ne bu ñu ko defee dinañ yokk périmètre communal bi mhm. ba tax ñu mën a am commune bu ko bu ko jar mhm. bu fekkente yooyu yëpp sax mënul nekk conseil municipal bi ak seen niveau de responsabilité dem nañ ba ni commune de yëmbal sud bu fekkee nii lañ ko nar a bàyyi nañ ko seeyal ci yëmbal nord muy benn yëmbal mu doon commune bu mag viable compétitive et mhm. porteur de développement comme ni ko acte trois de la décentralisation bëgg mhm. mais euh, mbettal bu rëy rëy la ñu am keroog bu ñu gisee vraiment euh, décret bi génn mhm. décret bi jëlul en compte dara ci li nga xam ne moom la ñu proposé woon rawatina turu Kër Massar sax dañu waxoon ni bu fekkente ni bëgg nañ département bu bees bi ñëpp bokk ci yëg seen bopp ñëpp bokk ci yem mhm. mënuñoo jël benn commune ci département bi jox ko turu département bi yëpp mhm. kon ñun yëmbal sud en tout cas la ñu daloon ca Pikine mhm. ñuy topp ci ginnaaw Pikine moo ñuy dalaat ci département bu bees bi loolu yëpp pour saafara ko ay léewal alhamdulilah arrondissement bi fi nekkoon te nekkatu fi te hmm. ëmb département bu bees bi mi ngi tuddoon ñaay kon département bu bees bi li gën a gaaw nañ ko hmm. tuddee rek département des ñaay ñun ñëpp ñu bokk ci yem ndax tur boobu hmm. ñi fi nekkoon ñëpp kenn mësuñu woon gis problème kon département bu bees bi bu tuddee noonu duñ ci am problème kon da nga jàpp ne ay incohérence dafa am ci euh, mbir mi ay incohérence yu yu yu yu profonde en terme de taille ndax yëmbal dafa tuuti en terme de manque d' infrastructure loolu may ko mu mën a remplir rôle bi nga xam ne moom la ñu wax ci ci ci ci acte trois de la décentralisation di commune noonu la war a doxee mais aussi en terme de de de périphérie de marginalisation ndax bu fekkente ni dugg nga ci benn département. Mm-hmm. sam nawle commune ni yow jël turu département boobu loolu wane na ni kooku mooy jiite département boobu da ngeen di topp ci moom mhm. donc ñun mbettal boobu ak naqar googu la ñu am mhm. gis ni point yooyu yëpp jëluñu ci benn mhm. donte mënoon nañu proposer sax mu tudd yëmbal ndax yëmbal village traditionnel la bu am plus de deux cents ans moo jur Malika moo jur Kër Massar mais ñu nee nañ bu ñu ko tuddee yëmbal bu ko tuddee lenn nañ ko tuddee ñaay nga xam ne ñëpp dañ ci bokk yem buñ ci jëloon benn sax ñu xam ne sax jël nañ amul benn buñ ci projet bi nañ ñu ko wanee woon ca conseil municipal bi noonu lañ ko jëlaatee décision finale te amul lu ci changé du yëmbal sud du yëmbal nord du Malika du fenn kon kay ñoom liggéeyoon nañ ba pare mhm. loolu formalité la woon rek def ko mais nag euh, ay la nga gàcce ngaalaama mhm. ba génération politicienne bi fi nekk tey mhm. wane nañu ni ñoom opposé nañu seen résistance hmm. opposé nañu seen seen opposition en tout cas pour ne pas me répéter par hmm. rapport à ça à ce truc te l'histoire lay retenir ndax hmm. bu njëkkoon ñi fi nekkoon defoon nañu ay erreur ñun yaakaaru ni réforme bi bu ñëwee dina régler erreur yooyu réforme bi dafa gën a saxal erreur yooyu nag xamuñu nag ba kañ ñoom dañ ne ay communes yi nga xam ne dañuy am compétitivité ak li nga xam ne moom mooy jëm ci wàllum koom regle in euh, insuffisance incohérence territoriale yi nga xam ne moom lañ fa nemmeek woon kon yow boo ñëwee kon wax euh, safaan bi kon euh, da nga jàpp ni kon projet bi ñu leen ko joxee jëmalewul kër boo dee xool ci découpage territoriaux yi mhm. communes yi nga xam ne moo ci moo ëppoon incohérence mhm. Yeumbeul Sud la Malika Sangalkam demal nga laaj leen ñoom ñëpp dañoo rejeté projet bi parce que jàppoon nañu ni yeneen communes yëpp amuñoon benn problème ah. mais ñun ñi am problème réforme bu bees bu ñëwee. dafa war a régler problème yooyu. dafa war a régler les incohérences loolu moom mooy projet réforme bu consolidante réforme day jëmale. Mhm. doxalin kanam waaye waru koo delloo ginnaaw. kon ñun fa ñu taxawoon ak suñuy jafe-jafe. Mhm. depuis 1996 ba léegi jafe-jafe yooyu la ñuy ba xamuñu kañ la beneen réforme di ñëwaat. Mhm. loolu moom mooy suñu naqar mais li ñu ci gën a naqari rek mooy lu ñu ci bedd lu ñu ci exclure. Mhm. dañu cee bedd complètement askan bi mais du at mais loolu bu amoon sax waxuma la sax les autorités locales mais askan bi seen jëmee bopp waroon nañ leen woo dans toute leur diversité. ñu toog ñu ne leen lii la bëgg nan ngeen li nga xam ne loolu ngay décider rawatina décision boo xam ni day am njeexital ala mm-hmm. bokkul ci wekk bokkul ci respecter mm-hmm. askan bi kon lan moo war a doon taxawaayu euh, commune bu Yeumbeul Sud lan moo war a doon taxawaay bi naam décret bi génn na lan moo war a doon seen taxawaay tey xam nga euh, ñun ñëpp dañuy agir mm-hmm. euh, face à à la société. Mhm. face à Dieu et face devant l'histoire juste euh, li ëpp solo mooy Yeumbeul Sud teg na benn benn jéego. jéego mhm. bi mooy rejeté nañu projet bi te wax nañu. Mhm. Euh, éléments yi tax ñu rejeté ko. te éléments yooyu bépp askanu Yeumbeul Sud ku ko dégg xam ne wax dëgg yàlla seen autorité autorités municipales jël nañ en compte seen mbir. kon atte bi nga xam ne bii atte bu négatif la bu ñu tegoon ci suñuy mag ñi fi nekkoon ci réforme bële passé. jàpp naa ne ñun ñii nga xam ne ñun la mbég nga jamono mucc nañ ci. leneen li ci des nag. ah euh, euh, autorités yi dinañ waxtaan. Mhm. dinañ xool quelle suite donner à ça. Mhm. bu fekkente ni jaay doole la ba mënuñ ci dara dinañ yuuxu ba suñu baat fépp fu may mën a toll ñu xam ne ñun ñi ànduñu ci lii. Mhm. ndax jafe yi nga xam ne yëmbal sud ma ngi ko amee. dina ko wéy di di wéyala wéyale ci département bu. est-ce que boole ngeen xeex bi yi ngeen di xeex yéen ak askan yu yëmbal bi ñoom est-ce que bokk ngeen ak ñoom gis-gis. ci wàllum doxalin bi dëgg la bokk nañ ci bokk nañ ci gis-gis yu yu yu ñu ngi leen ciy fekk si ñu ngi ñu ciy fekk si bëri ay association yoo xam ne ñu ngi organiser ay marche di organiser ay confrance de presse di dénoncer vraiment mbir mi nga xam ni Euh, découpage bi euh, mayuñu ko ñu bari dañuy gis ak marché lambada parce que mhm. foofu boo xooloon carte bi ba gis nañ ko kuppatee ci biir yëmbal sud mhm. yóbbu ko ci yëmbal nord li ko waral du lenn lu dul amoon na responsable politique bu fa nekkoon ca jamono yooyu doon milité yëmbal nord mu yóbbaale côté boobu xam nga loolu tamit gis-gisu mhm. euh, gis-gisu du moment te politique du loolu politique da ngay agir pour les générations futures te loolu nag wax dëgg yàlla jàpp naa ni conseil municipal bu yëmbal bi baara ngay diriger wane na loolu justement dañ ne mbir mi dafa lax dafa am laxasaayu politique bu ci rax mais am na ñu bëri ñu ne jàpp ni loolu mbir mi amul politique yéen da ngeen jàpp ni politique la. Mbemba réforme euh, territoriale bu am ay veillu élection locale ku ci bëgg a génnee mbiru politique yow yaay ndax sa bopp. donc leneen lu dul donc lu lu ci fës la. lu ci fës a la. lu ci fës a fës parce que déjà fu toll nii am na euh, njiixi njaaxa. Mhm. c'est vrai que ministre bi mi ngi jéem a rassurer nit ñi mais loolu mënta nekk njiixi njaaxa bi mooy dafa war am benn carte électorale bu bees. Mhm. ndax ñi nga xam ne léegi dañoo aju woon ci Pikine léegi war a nekk eh, war war aju ci département bu bees bi mhm. dañu war a am ay carte électeurs yu bees dañu war a am ay centre de vote yu bees ay bureau de vote yu bees mhm. répartition boobu diggante bi est-ce matériellement mën nañ koo fexe ba askan bi yëpp xamee ko noonu kenn ku nekk dem def li nga war li li nga war a def ba mën a exprimer ce suffrage le moment venu comme ni mu mhm. waree loolu yaakaaruma ko kon ñoom vraiment euh, mbir mi politique la comme ni ko tournée politique bu président de la république mené. jàpp mhm. ma ni am na benn euh, aspect administratif. Mhm. benn aspect bu pertinent. boo xam mhm. ne dafa euh, dafa dafa ñeel euh, administration territoriale. boo xam ne bii mën nañ ko ci. bu dee bu dee mbir mi politique la lan moo war doon tey seen taxawaay ci wàllum politique. kon foofu dinañ ci joxe réponse politique. parce que boobaak léegi amul amul conseil municipal. Euh, de toute façon monsieur le maire euh, il toujours été au devant ci wàllu jafe-jafe yi nga xam ne bi yëmbal am na ko en général ko waaw mais dégg nañ ko parce que conseil municipal bi moom mooy le le le le maire moom mooy moom mooy premier magistrat de la commune donc bépp décision boo xam ne bii conseil municipal bi def na ko moom mooy porter sa voix ci loolu mm-hmm. donc jàpp naa ni ne serait-ce qu'à travers le conseil municipal et les délibérés les publications et les interventions yi nga mm-hmm. xam ne bi def nañ ko loolu euh, c'est sa voix mm-hmm. man mii je parle euh, euh, à son nom kon jàpp naa ni ku ma dégg ci question boobu xam nga li nga xam ne moom la ciy baaragay 7 wala 88 628 85 85 wala 88 628 86 86 mun ngeen dugg rek bokk ci li nga xam ne moom moo jëm ci waxtaan bi waaye dañ koy wéyal dinañ ñëwaat ci wàllum euh, découpage bi ndax projet la boo xam ne coow li moom dafay wéy mais bul waxee commune bu yëmbal ba ngeen fi ñëwee ba tey yéen. ci seen jéego lan ngeen fa teg loo xam ne askan wi tey mun na ko fa teg loxo ni yéen seen ay lii ngeen fi def ci wàllum jumtuwaay mbirum sanitaire paj lañ koy dooree lan ngeen fa teg loo xam ne nit mun na ko jàpp ni lii yéen a ko fa def. waaw jërëjëf Mbemba wàllu réalisation defe naa benn émission du doy pour ñu wax. ci dañuy tënk rek mhm. euh, waaw dañuy tënk. da nga may may avant loolu ma gërëm askanu yëmbal sud. Mhm. à travers askanu yëmbal sud le conseil municipal de yëmbal il a été exemplaire durant tout le long du mandat. Mhm. depuis bi Bara Gaye faloo ba léegi lépp lu mu mës a proposé le bureau municipal dañ ko adopté. Mhm. conseil municipal ah yéen a fa ëpp kay ndax da ngeen koy validé. waa ba tey mhm. donc loolu déjà alhamdulilah dañ koy sant yàlla waxuma la ëpp bi ñu ëpp foofu rek waaye am na euh, ay ay commune ci seen jëmmi bopp yoo xam ne bii ci opposition bi lañ nekkoon ñoom ñëpp dañoo dem de l' autre hmm. kon suñu biir conseil municipal suñu maire bu desee dans l' opposition euh, wéy di amal majorité ci biir conseil municipal bi cela veut dire que liñ ko gëmee woon ci départ ba ak projet bi mu tegoon euh, conseil municipal bi gungee nañ ko ci hmm. donc musul am benn proposition bu mu def ba ñu rejeté ko kon lépp lu mu mës a def c' est parce que conseil municipal bi jàpp nañ ci mais hmm. la population en tant que amul benn perturbation yéen ñi nga xam ne ay taskatu xabaar ngeen kenn mësu leen woo ci yëngu-yëngu politique wala administratif wala leneen lu mënti doon ci biir commune bu Yeumbeul Sud mhm. kon cela dire que euh, askan bi dajaloo nañu comme un seul homme mhm. nekk ci seen ginnaaw gunge ko gunge ko jàppale ko ci loolu mhm. léegi nag pour ñëw ci réalisation bi xam nga bu ñu ñëwee di di wax ni lii la def lii la def lii def nit ñi mën nañu am na fu ngeen am na fu ñu jógee loolu laa bëgg a ñëw euh, yàlla dafa dogal Yeumbeul Sud ñun bañ fa juddoo ba ak li jiitu ñun sax dafa hmm. nekkoon commune boo xam ne bi commune bu rafle la en terme d' infrastructure hmm. lu ëpp ci li ñuy soxla ci jumtuwaay dañ ko doon jéggaane ji feneen hmm. loolu di benn aspect beneen bi ci topp mooy ki jiite tey di Bara am benn parcours boo xam ne bi tey dafa jariñ askanu yëmbal sud parcours bi mooy lan dafa di koo xam dafa juddoo ci biir commune bi yaroo fa jàngee fa dugg ci mouvement associatif ci lu teel ci en terme de nawetaan nekk fa joueur jóge fa nekk nekk dirigeant ASC mais jóge ci loolu tamit dugg ci développement nekk acteur de développement bu actif. Mhm. nekkoon relais communautaire loolu moo ko may tey gis-gis alors xam-xam bi mu xam commune bi. Mhm. étape boobu moom moo ko may. Mhm. en tant que acteur de développement bëri na ay organisation féminine wala ay association yu nekk ci biir yëmbal bu ñu amee récépissé yàlla ak baaragay moom moo tax ci encadrement bu ñu amee financement bu ñu njëkk am moom moo leen ci jàppale bu ñu xamee nan la jaar ba am ay financement moom moo leen ci dimbali en tant que relais communautaire capté financement bu jóge woon AFDS pour benn projet euh, de euh, micro projet de case de santé bu tolloon ci vingt millions. en étant étudiant. pour hmm. woon la ni euh, acteur de développement la woon bu actif. maanaam processus la processus la mu jóge fa tàbbi nag ci politique. Hmm. ci parti bu ñuy wax parti démocratique sénégalais. Hmm. Euh, dugg ci euh, créer mouvement des jeunes. libéraux de moins de trente cinq ans seeyal ko ci biir structure légale du parti ci biir UJTL xeex ci biir UJTL ba nekk Euh, ba diriger UJTL loolu may ko mu jonjonteeg ki nga xam ni moo yàgg a nekk mentoram ci wàllu politique muy Abdoulaye Wade hmm. fréquenté ko jege ko kooku def ko ministre de la hmm. République mais mu jàngee ci moom nag méthode hmm. ak pragmatisme bi nga xam ne bii moom la Ablaye Wade. xam nga li nga wax ni dinañ ambition waaw xam nga li nga wax dinañ ci ñëw. ndax loolu actualité la boo xam ne mënuñ ci ñàkk. mais ñu ñëw ci tënk tey d'abord ci mbirum aspect sanitaire bi. ca commune Yeumbeul Sud. léegi nag euh, fan ngeen jógee ak tey fan ngeen yegg. léegi nag bi bi parti bi wàccee au pouvoir ñu nekk dans position ñu fal ko mu nekk maire. bi mu nekkee maire. ci anam gu metti ah. waaw anam gu metti. mu mu mu établir nag ay priorité mhm. parce que bala ngay liggéey ci benn biir foog nga xool ko li mu njëkk a seetlu mooy mhm. euh, li manqué woon nañu góor góorlu ñun suñu génération ba ñu mottali ko mhm. beneen bi ci topp mooy équité li nga xam ne lañuy def nañu fexe ba yëmbal waa bu ci mën nekk fu mu mënti féete mu gis ci boppam te yëmbal seetlu nañ ni infrastructure yi fa nekk yëpp ci kaw tali bi lañ nekk li ko dalee naataange Afia Jidda ba buun amuloon benn infrastructure boo xam ne état def na ko fu wala mairie moo tax mu foofu foofu moo foofu laay duggee ci wàllu santé. Mhm. li fa njëkk a def mooy poste de santé bu ñu tuddee Cheikh Sidaati Fall alias Pakoti. Mhm. Euh, am euh, logement ICP ak ak ak ak sage-femme. Mhm. donc loolu nekk lu rëy rëy rëy ci askan boobu ndax kenn mosu leen woon boole ci li ñuy def ci wàllu commune. donc ci wàllu santé loolu am na ci solo. beneen bi ci topp at bu nekk. dina génne lu toll ci cinq millions subventionné ko. loolu euh, néewul yow itam Abdoulaye Sagna. waaw mais euh, koy cumuler da nga koy cumuler ak yëmbal ni mu toll yëmbal tollu nen en réalité parce que turu baara gay tollu yëmbal toll noonu war naa la sànq ne la yëmbal deux virgule vingt huit kilomètres la toll. amul marché. Mhm. bañ fay ñëw. amul euh, amul amul amul infrastructure amul usine. Mhm. recette yi yëmbal di dugal ku ci yaakaar ne mën nga cee tabax. ak commune non dafa néew loolu. dafa néew loolu bu fekkul woon mu amoon portefeuille bu am solo amoon ay partenaire am aussi pragmatisme bi nga xam ne moom jàngeen na ko ci Ablaye Wade comme ni ma la ko waxee sànq. Mmh. kon tey yëmbal duñ ci toll fii. Mmh. donc recette yëmbal vraiment dañ koy dañ koy dañ koy surévaluer des fois mais demeewul noonu. mais ngeen di fay joxe subvention juróomi million ci yenn ci. ci yenn infra ci ci ci ci pour la santé. Mmh. alors euh, amoon na année mu génne lu toll soixante-quatorze millions jënd ko ay matériels médicaux. distribuer ko ci poste de santé yëpp. ñaata poste de santé ngeen am. Euh, amoon nañu ñett ak bii ma lay wax léegi moom mooy moom mooy quatrième bi gën ci bees gën ci gën ci yàññ personnel bi nga xam ne bi moo nekk ci Cheikh Sidaati Fall Pakoti mhm. boo ci génnee ICP bi ak sage-femme bi lépp moom moo ko jël en yeneen poste de santé yi la fa nekk comme personnel d'appoint moom moo koy jël en charge donc sans compter li nga xam ni euh, au besoin dañ koy dañ koy solliciter muy jóge ci ci ci poste de santé yi rawatina nag vraiment taxawaay bi nga xam ne bi commune bi am na ko bi covid bi amee ñu arrêté activité yëpp ñun ñëpp jublu ci wàllu santé covid bi covid 19 ba muy doon dem di wàcc ci mbedd bi di sensibiliser di sensibiliser di distribuer ay gel ci génn kay koppar ba tey xeex bi ngeen mujj ci fës euh, li ci génn lan ngeen ci def def tey ba xeex bi ngeen. bëgg ci fës dañ cee fësoon bi amul ci doole foofu tey ci. dimbalu absolument dañ faa dañ faa def liggéey bu am solo parce que euh, bi nga xam ne bii amoon na premier cas bu dugg ci biir Sénégal dañoo waxoon nañu arrêté activité yëpp. Mhm. Baara Gaye jiitu ci ndax boobu c'était au mois de mars le 2 mars le premier cas bi am. le 8 mars waroon a nekk. Euh, journée internationale de la femme fekkoon na mu defoon toutes les dépenses mhm. ba femmes yi jëndoon seen i yëre ba war koo def ba lu jëm ci journée bi organisation lu toll presque ci cinq millions dépensé oon mu ne teg leen lépp ci suuf parce que wér-gu-yaramu askan bi moom moo ko jar mhm. def atelier woo tailleur yëpp salle de délibération bi ñu transformé ko en atelier ñuy ñaw ay masques. jënd ay gel kenn mënu la wax ni mu toll jënd ay nourriture yóbbu ko ci daara yi jàppale euh, askan yi moom ci boppam muy wàcc sur le terrain di sensibiliser le les les, les populations yàlla nattuñu. ci lu gaaw ñu am cas ci biir yëmbal sud. cas bi rapidement mu mettoon loolu nag cas bi rapidement mu multiplier wu à une dizaine de cas. ñu jaaxle woon loolu mais mu am ci taxawaay ubbi loxoom woo. toutes les forces vives de la commune. képp koo xam ne am nga ci pexe am nga ci loo loo ci mën a def ñëwal ñu ànd xeex mbir mi. donc noonu la fédéré vraiment toutes les forces de la commune ñu ñëpp ñu ànd ci liggéey ci liggéey bu bu bu mucc ayib. bu am solo. ba de dix cas on est parti à zéro cas. loolu nekkoon vraiment ndam lu rëy boo xam ni askan yëmbal sud yëpp ko bokk. en particulier nag euh, le comité de de de de riposte bi nga xam ne tegoon na ko. le relais communautaires joué joué woon ci bu ama am solo ak bàjjenu gox yi. ok tey ci li nga xam ni moom moo jëm ci l'hôpital foofu man ko xalaat biir yëmbal itam bu ñu xoolee anam gi naam askan yi fay yeewoo néew nañ mais ñiy ñëw di faju ji itam ci biir Dakar yéen a ngi xalaat itam taxaw fa taxawal fa beneen benn infrastructure boo xam ne ci wàllum paj dina am solo lool ci askan wi nga xam ne ñoo fay yeewoo waaw bon yàlla dogal na centre de santé bi yëmbal bi pare woon bu yàgg fexe nañu ba ubbi ko. Euh, mu soulager askan bi mu soulager askan bi mu ëmb yëmbal noor ak yëmbal sud. Mhm. ndax ñu ñëpp dañoo aju woon ci district sanitaire bu Kër Massar. léegi am na benn décentralisation am na mhm. benn ci rawatina nag mu am docteur Dieye ki ko yor vraiment nekk ko disponible. Mhm. Euh, am taxaw bu am solo bi mu defoon ci wàllu Covid bi ñu liggéey kook moom. donc mais euh, wér-gu-yaram nu mu gën a mën a jege askan bi rek dafa am solo. askan bi waratuñoo déplacé wu ci lu sore sore pour euh, pour di pour di saytu seen yaram. donc loraange la. <laughs> donc ni mu demee woon noonu ba ñu jàpp ni ñun suñu zone yëmbal dafa war a am centre de santé bu ñu demee ba jëmmi jamono ba yëmbal sud mën a am centre de mhm. santé mu toll nii ñu ngi jéem a góorgóorlu bay ñoŋal li nga xam ne moo fi nekk d'abord mhm. bala ñoo yóotu leneen. ba loolu tey foofu euh, na lu ci sooxe. am na am na ay problème mhm. am na ay problème comme comme comme bépp poste de santé. problème de ressource wax naa la ko léegi yëmbal sud nekk na vraiment. commune boo xam ne bii en terme de ressource euh, doy na waar mhm. mais fexe nañu ba offre bi mhm. diversifié wu ba fépp fu doom yëmbal yeewoo bu amee lu ko euh, bu amee tawat war a mhm. mën a dox dugg ci post de santé loolu dafa am solo te du ci am gàllankoor te du ci am gàllankoor donc les premiers soins wala bokk euh, poste de santé yi fa nekk ñu ngi remplir pleinement rôle bi nga xam ne bi moom moo yem ci seen compétence lépp lu ñu war a évacuer ci centre bi yàlla dogal na soriwul tamit mi ngi yëmbal noor ok covid bi itam ñuy wax mbirum vaccin Euh, ndax yéen a ngi itam sensibiliser askan wi foofu ci li nga xam ne moo jëm ci vaccination bi ndax dañ ne tey moo fi nekk gum saafara. dëgg la dëgg la ñun ànd nañ ci moo nekk gum saafara waaye ginnaaw loolu sax gis nañu contrainte wala jafe-jafe yi nga xam ne test bi am na ko. Mhm. boo waree voyager da ngay def test. test bi doon lu cher lu toll ci quarante mille. ndax léegi wàññi nañ ko ak kii CEDEAO bi vingt cinq mille. voilà vingt cinq mille mais ba léegi mhm. jàpp nañu ni. vaccin bi au delà de moom mooy saafara bi mais mooy mooy yeew yi ñëpp ba nit ñi mën a delluwaat di gisee di daje comme ni mu waree. Mhm. moo tax monsieur le maire Bara bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo njëkk ñàkku ci mm-hmm. yëmbal sud ba ñuy ba ñuy ubbi ba ñuy ubbi campagne bi ñëw na mm-hmm. euh, publier ko wan ko vraiment askan bi yëpp ànd ci ay dignitaires yi nga xam ne ñi ngi ci biir commune bi mm-hmm. ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ñàkkul parce que moom moom gëm na ni ñàkk bi vraiment moom mooy solution bi ñu toll nii ku ne yëmbal des fois da xalaat ni euh, mbirum euh, taw buy ñëw jafe yi nga xam ni moom moo fay am tey est-ce que tey naam mën nañ ne du compétence mairie infrastructure yi ca war yi am doole ngir mën a gàttandu taw bi yéen a ngi ciy bàyyi xel mbirum infrastructure infrastructure yi fan ngeen toll tey ci commune bi. oui mbirum infrastructure ci wàllu inondation bi yàgg nañ ci yàgg nañ ci soññu état du Sénégal comme ni nga ko waxee noonu. infrastructure alors fi mu ci toll peut-être voilà euh, état du Sénégal ñoom ñoo ci gën a mën a tontu waaye ñun li ñu gis mooy bari na ay gas yu ñu gas yoo xam ne bii amul. amagul amul amul amul amul finition. ci biir commune bi ci biir commune bi. arrêté nañ travaux lu yàgg ba temps yi ci ginnaaw lañ ko commencé. te loolu jàpp ma ne luy luy lig luy jariñ la. parce que vraiment bu ñu naree xaar ba nawet ñëw ñu ñu commencé di liggéey. Mhm. balaa euh, mbir mee ñoŋ sax ndox mi fekk suñu waat. Mhm. wax dëgg yàlla loolu dafay doy waar te askanu yëmbal yëpp seen yaakaar mi ngi nekk nag ci infrastructure yooyu. parce que mhm. loolu bokk na ci fléau yi gën a sonal suñu askan. mooy man wàllu inondation boo xamoon nañ ci daj ci wàllu mobiliser ay camions chaque euh, chaque hivernage. li ñuy mobiliser ci carburant li muy mobiliser moom maire ci wàllu moto pompe mhm. kenn mun la wax ni mu toll rax ci dolli di wàccal boppam sur le terrain sol ay plastique am nemmeeku ji askanam massawu leen waaye tamit indil leen ay solution par rapport ak seen jafe yooyu mhm. loolu euh, am naa yaakaar ni infrastructure yi buñ ko yokkee ñu def ci pastef bi war mhm. loolu dina mën a soulager askan bi parce que yaay gis ñoo xam ne dañuy génn seen biir kër lu mat juróomi weer parce que kër ga mënatu la a kenn mënu faa dëkk ndax ndox mu fay des euh, sans compter ñi nga xam ne jóge woon nañ fi bu yàgg ci wàllu ndox te ba léegi seen kër ñu ngi koy xaar amaguñ ko ci wàllu tawféex ci mbirum infrastructure yéen lan ngeen fa teg loo xam ne mun ngeen ko fa tegal askan wi ci li ci wàllum jumtuwaay yooyu ci wàllu inondation infrastructure waaw non ñun euh, euh, inondation yi sax euh. wàllum infrastructure ci biir commune bi nekkin bu ñoŋ yi nga xam ni mooy dox ci xal yeeg ci biir koñ yi naka ngeen ko def suuf seeg pavage yeeg ndax yéen yéen a ngi ci bàyyi xel waa ci wàllu infrastructure yëmbal amuloon benn béréb boo xam ne bii mën nañ faa dalal bépp ndaje amul woon tey am na ñaari place publique yu yàññee muy place publique El Hadj Thierno Ndiaye ak place publique Baye Daouda Diop bi ma doon ci commune bi ci ci ci ci ci alalu commune bi ci wàllu ci wàllu nekkinu askan bi aussi góorgóorlu woon nañu ba euh, taal lu tolloog cent cinq points lumineux ba ñuy ñëw en deux mille dix neuf juróom-ñeenti làmp moo doon tàkk ci commune ci commune bi yëpp euh, góorgóorlu nañ ba am nañ cinq cent cinquante trois points lumineux au moment où je te parle même même si entre temps euh, jafe-jafe day am ci wàllu entretien wala leneen lu mu mënti doon mhm. euh, góorgóorlu tamit ci nekkinu askan bi bokk na ci askan bi am kaaraange mhm. yëmbal sud amuloon poste de police ci suñu moyen bopp ak suñu moyen partenaire bu ñuy wax Demba Ka ma koy saluer au passage mm-hmm. am nañ poste de police boo xam ni lu yàggul dara dinañ ko ériger en commissariat parce que ñu ngi ko ñu également extension bi ci kaw mm-hmm. donc euh, askan ku ko indil lumière indil nga ko sécurité ku ko indil poste de police également yaa ngi yokk mm-hmm. kaarangeem donc loolu yëpp dafay bokk ci lii ñoŋal nekkinu askan bi sans compter euh, askan bi seen soxla tamit weesu na loolu dugg sax ba ci njàng ak njàngale yëmbal euh, am na deux di fa entre en génn loolu dafa bokkoon ci li nga xam ne dafa gënoon a tenir à cœur ñu ngi leen di am nañu collège bu bees mhm. collège imam Mouhamadou Sakhir Gaye mhm. boo xam ne bii tabax nañ ko sur fonds lu toll ci cent deux millions. donc loolu nekk na progrès bu am solo boo xam ne bii eh, ñoŋal nekk ñu xale yi la parce que xale yu ci bëri tamit seen jàng ci diggante boobu lay yàqoo bu amee entrée en nekk xale di jéggi di dem Kër Massar wala Malika wala Diamaguène Sicap Mbao comme waa Afia tamit nañ doon faju jee ci bërëb yooyu lañu doon faju jee lool tamit nekk na jafe-jafe marché amu fa woon tey jii tabax nañ centre commercial bi gën a mag ci département bi mi ngi tudd centre commercial Al Maktoum eh, lu yàggul dara incha allah dinañ ko inaugurer ngeen ñëw teewee ko mi ngi nekk ci Jidda Buun mu nekk foo xam ne zone périphérique la ñoo ñëpp mosuñoo gis seen bopp ci ci ci commune bi mhm. ci biir dafay amaane centre d'état civil secondaire ndax xale yi fa doon juddoo ñëpp nañ leen doon déclaré ji fa gën a jege mhm. fa leen gën a jege mooy jàmm gën si kaw mooy yëmbal nord mooy Kër Massar mooy et cetera donc xaaroo leen ba jamono yi bëgg a def ay inauguration yi tabax yi est lu wax ngeen xaar ba waxtu bi bu ko dalloo itam wala léegi la pare no léegi la pare loolu benn la mais ñun sax boo dee xool inauguration duñ koy sax faral di def benn infrastructure la ñu mës a inauguré mhm. muy collège ba ndax kañ ko tuddee moo toll noonu Imam Sakhir Gaye mhm. nekk vraiment euh, ku mag ci ci ci askanu ci euh, ci ci yoonu Laayeen mhm. euh, ñu delloo ko njukkal bu mel noonu famille am sàkku nekk vraiment loolu dañ koy sargal ci wàcce alxuraan ci def ci def ay ay waxtaan ci moom ci invité tamit tout le monde éducatif ak askan bi yëpp pour ñu ñëw Euh, wan leen ko parce que nit ñi tamit boo leen defalee benn mbir fonk fonk fonk nga wan leen ko mhm. euh, lu weesu loolu police ba la ñu mës a def pose première pierre te li ko waraloon dañu bëggoon justement sargal ki nga xam ne moom moo ñu jàppale ba ñu am ko muy euh, Demba Ka suñu frère. Mm-hmm. Euh, sargal boobu dañ ko dañoo woo papaam di délégué de quartier bi nga xam ne bii mooy ci bi mi ngi ci biir commune bi jox ko diplôme de reconnaissance. Mm-hmm. donc bu dul loon ak njukkal boobu Bara Gaye bëggoon na delloo Demba Ka amaana cérémonie de pose de première pierre boobu sax du am. l'école yi lu am solo la. Mm-hmm. Euh, am na fa ngeen ba ngeen di ñëw mbirum clôture yi des fois dañ koy joytu. mbirum toilette yi école yi bu ñu duggee fu nu war a demee gaanuwaay des fois koy ñaxtu ne dañuy jàll di dugg ci yenn kër yi ndax tey foofu ca lekkool yi jàng xale yi ñu ngi jàng ci anam gu mucc ayib. alors ñu ngi jàng ci anam bu mucc ayib am na jéego yu ñu ci def jéego yu bëree bëri parce que boo jëlee école bi ci mel ni Momar Khary amuloon sax bureau directeur pour dëggal li ngay wax. Mm-hmm. directeur bi ci keppaar gi la doon toog. tey jii Bara Gaye defal na ko bureau directeur bu am toilette intérieur équipé ko mu nekk vraiment ci confort bi nga xam ne moo méngoog rang bi muy occupé boo euh, boo demee ci école euh, Abdou Ndiaye euh, salle informatique amu fa woon monsieur le maire tabax na fa salle informatique équipé ko jébbal ko xale yi école bii di Abdou Ndiaye tabax nañ fa salle Euh, bu bees parce que benn abri provisoire moo fa nekkoon. Mhm. Euh, ñu def ko sàkket ñu defal leen ko salle salle de classe bu mucc ayib tabax toilette pour les enseignants ndax enseignants yi wala administration bi ñoo bokkoon bloc euh, toilette bu ñu doon utiliser xale yi te loolu méngoowul ak vraiment li war. Mhm. boo demee musée Anta Diop mur de clôture ba am dafa daanu woon defaraat nañ ko. Mhm. donte am na yu des lu ci mel ni école Madi Ndiaye war nañu defaat foofu ñetti salle de classe. lu tolloog 37 millions conseil municipal bi voté nañ ko war a defaraat les toilettes. ndax euh, toilettes yi tamit dafa yàqu mhm. donc euh, bëri na daal ay affaires yoo xam ne ñu ngi ciy continuer ci biir mhm. école yi tamit monsieur le maire jàngee ci école publique dañ lay solal blouse jox la ko sans mhm. compter fourniture scolaire yi ñu leen di jox sans compter prime yi xale a ràññeeku sans compter ni ñuy de Noël yi nga xam ne ñu ngi koy defal xale yi ngir di leen célébrer donc yooyu yëpp ay activité la matériel pédagogique pour di ko jox les jàpp naa ni euh, enseignement euh, gën naa sori. lu ci lu ko gën a weesu sax même formation professionnelle jëm na ci lu lu am solo lu ëpp vraiment mille étudiants depuis 2015 mhm. ba léegi may nañ leen ay bourses de formation mhm. professionnelle ñuy dem di jàngi mhm. sans compter un jeune un permis loolu tamit dafa bokk ci capacitation de jeunes lu tolloog euh, juróomi téeméeri xale euh, deux cent cinquante xale jox na leen jox nañ euh, ay permis te loolu wax dëgg yàlla dafay renforcer seen seen sens pour ñu mën a am liggéey donc vraiment loolu yëpp nekk na yoo xam ni jóge na sax ci compétence bi nga xam ne bii bokk sax ci compétence am muy formation muy emploi professionnel alors mais bu nu xoolee tey ci wàllum jumtuwaay li ngay wax ni yëpp am na solo ndax ñu addu si tàggat yaram parce que benn pàcc la boo xam ne dañ koy faral di bàyyi di ko euh, bàyyi ginnaaw bu baax mais tey yin stade Alassane Djigo ngeen di football ndax uh, am ngeen yenn uh, idées yoo xam ne yéen a ngi koy teg en place ci li nga xam ne moo jëm ci wàllum tàggat jaram ak uh, li nga xam ne moo jëm ci environnement bi foofu yenn ASC yi ndaxam dinañ gis seen bopp ci mbir mi yenn subvention yi ba xam du tardé itam. dëgg la sànq maa ngi la doon wax léegi jaar jaaru Bara Gaye te wax naa la fi mu jaar ci wàllu football. war na mën a bëgg football. voilà donc te mënoon kayit xam naa ne léegi moom. dina xaw a dina xaw a doy waar pour mu def euh, quatre-vingt-dix minutes mais euh, li ëpp solo mooy euh, Bara Gaye ñu koy atte au terme de son mandat dafay bari mais ñi ci ëpp solo mooy ndaw ñi la parce que jeune la te sportif fi bokk ci parce que moom dafa dafa amoon jaar-jaar ci wàllu sport mhm. loolu tax na ba subvention fa mu ko fekkoon da ko yokk au moment où nous parlons euh, subvention bi pour les ASC toll na ci deux cent mille francs mm-hmm. alors euh, mais aussi en termes d' infrastructure benn terrain moo fa nekkoon te musul praticable en tout cas mënul mënuloon def compétition gis nañ ko fi mu dem Turquie di xool mbirum gazon fu ngeen si toll ba mu ko wanee yàgg na de terrain boobu mm-hmm. ba mu ba li tax mënuloon euh, nekk terrain réglementaire dañ faa tabaxoon benn centre polyvalent mm-hmm. léegi Bara Gaye ci biir yéeneem fexe ba yëmbal lu mu ñàkkoon mu am ko fexe na ba waxtaan ak ñi nga xam ñoo nekkoon ci centre polyvalent bi kenn ku ci nekk la ngay yëngu mu gungee la ba nga continuer ko defee ko feneen ba ñu raser centre polyvalent ba tere ba libre pour ñu def ko stade gazon synthétique terrain ultra moderne comme Dakar Sacré-Cœur mhm. Mhm. loolu bu boobaa dina mën a permettre non seulement commune bi am recette mhm. mais tamit dina mën a permettre les sportifs ñu mën a pratiquer seen sport dans la dignité ñu xam ni rek lu baax du feneen lañ koy jëlee di waaye fii lañ koy defee ngeen ci toll tey donc loolu euh, euh, je crois que en fait amoon na ay euh, discussion yoo xam ne amoon na entre entrepreneur bi ak le maire ci wàllu planification parce que moom dafa am délai yu mu ko bëggee en terme de mais aussi en terme de de qualité. Mhm. mu war a ànd ak ouvrage u euh, drainage des eaux ndax ñi dëkk côté boobu yëpp ndox mi da leen di yàgg sonal. Mhm. maire dafa waxoon le l' ingénieur mu fexe ba intégré ci euh, canalisation nga xam ni day soulager walla ñi fa dëkk ñëpp donc loolu euh, mënul am feek canalisation bi war a jaar. ci meddu Thierno Ndiaye mhm. rombul tey jii ci suba ba la ma fay ñëw ñu ngi may woo ne ma ñoo ngi dugal canalisation bi ci terrain bi mais pour vous rassurer l' entrepreneur pare na les moyens les le financement est mm-hmm. disponible. Mm-hmm. loolu desul lu dul vraiment ay détails rek pour ñu war a mën a commencer liggéey boobu. askan wi mën a beneen bi ci topp mm-hmm. mooy terrain bi aussi. Euh, damay sant di gërëm waa UFI Union des frères Yëmbal waa ñoom ñoom moom terrain bi. du terrain municipal du terrain communal. donc ñoom dañoo def ak ñoom partenariat ñoom ñu nangu porter projet bi. ñu ànd ceeg la commune et le bailleur bi nga xam moom mooy financé. pour trois parties yooyu mën a réaliser ASC yëpp kenn ku ci nekk d'accord nañ ci ñoom ñëpp d'accord nañu ci ñoom ñëpp mhm. mais aussi ñoom ñëpp nañ ci am accès de façon gratuite kenn ku ci nekk am ci jour yi ngi ci entraîné mhm. donc vraiment ñu planifier loolu nga xam ni vraiment infrastructure waa yëmbal la waa yëmbal dinañ ci bénéficier Abdoulaye Sagna bu ma la déglu euh, bilan bu fii lii fii def yëpp comme wax kon dama ne jàpp ni boo doon tiré bilan looy tiré li ma fi li ma fi wax yëpp du du du comme wax ay jëf la mën naa jàpp sa loxo mhm. fenn fu ci nekk ma joxañ la ne la li ma la doon wax mi ngi nii li ñu fi def ci bilan bilan bu extraordinaire. maanaam est-ce que pare ngeen ngir tënk ko ci kayit jébbal ko askan wi. loolu pare na def nañ benn livre bilan. Mhm. Euh, incha allah rabi duñ ko jox sax askan bi dañ koy présenté d'abord monsieur le toog askan bi ñu woo leen ñoom it buñ ci amee laaj ñu laaj. ñu leeral leen yéen it tamit taskatu xibaar yi dinañ leen invité. ngir ñëw ñu présenter livre bilan bi pare na. Mhm. lépp lu ci nekk nag communication loolu xam nga communication la communication day day am contexte ak prétexte. Mhm. yooyu xëy na bu ñu jàngatee ba càmbar ni moment bii la dinañ ko ci génnee incha allah rabbi mais lu pare la. Mhm. mais euh, sama appréciation ci benn mot bilan bu satisfaisant la. ndax li ko waral mooy même monsieur maire ci boppam. Euh, nee na moom li mu def da koo bett ku ko waxoon 2014 ni lii yëpp mën na ko fay du ko gëm. mais ndimbalu suñu borom la ak aussi ñaanu euh, mag ñu baax ñi nekk yëmbal. Mhm. yëmbal euh, ak aussi li ma la wax sànq ci jaar-jaar bi nga xam ne monsieur le jaar na ko. Mhm. ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ci liggéey bi. Mhm. dañoo juddoo ci foo xam ne fii vraiment dafa rafle ci wàllu infrastructure ñu màggaale loolu. loolu dafa tax ménager wu ñu benn effort benn. vraiment am na ñu am na ñu leen di xool foofu ñoom jàpp nañ ni lépp nekkul gongole. Ah, euh, ah waaw ku sa wujj di sëlëm doo set ndax hmm. am ngeen fa ñoo xam ne itam tey taxaw nañ li ngeen bëgg euh, euh. li ngeen yor loolu lañ bëgg kenn ku ñu naan ab xawma sow mi ngi fa di kii am na lu mu bëgg naam waxagul ni lii la bëgg waaye est-ce que yéen a bàyyi xel itam ñeneen ñi nga xam ne bëgg nañ siis bi waaw ñun nag bu fekkee am nañ defoo loolu mooy suñu defoo ñun ñi nga xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo nekk suñu kaw ñun du ñu dégg sax lu ñuy wax xëy na yéen a ñu koy yéen a ñu koy jottali. li ko waral mooy yéen a dëkk li ko waral mooy ñoom pendant sept ans ñu ngi janoog Baara Gaye Baara Gaye pendant sept ans mi ngi janoog askan bi janoog soxla askan bi. ñun mhm. xooluñu leen. comme ñoom ñoo ñuy xool nañuy wax rek amul problème mais l'essentiel ñun suñu baromètre bi ëpp solo mooy askan bi lu mu xalaat ci te jàpp naa ni askan bi am nañu satisfaction bu mag a mag a mag. li ko waral mooy ñun suñu bilan bilan matériel moo ci gën a tuuti. bilan humain moom moo ci ëpp solo maanaam tey jii yëmbal sud am na dayoo boo xam ne amu ko woon avant 2014. tey foo wax yëmbal nit ñi dañ koy rattaché directement à l'image de Bara kon parcours bi nga xam ne amoon na ko démb bala moo doon maire tey jariñ na. yëmbal sud naam fekkoon nañ fa classe politique yu yàgg mhm. amoon na ay baron ñoo xam ne vraiment ñu méritant lañu ndax bu ñu yàqoon xëy na politique bi ñun duñ ci am benn cofeel ba ba koy def mhm. am nañu seen i mérit mais amuloon benn leader politique biir yëmbal boo mënoon jàpp loxoom yóbbu ko ba euh, ay nomades yi te doo ko présenter nit ñi yàlla musal nañu ci léegi loolu jeex na avec Bara Gaye fépp foo ko yóbbu ba Kulikoro mhm. dina leen ne Bara Gaye ngi ni maire yëmbal sud te loolu dafa am solo maanaam am na envergure nationale léegi. yëmbal loolu lu ama am am solo moo waral ba mu intéressé tey ñu bari rawatina ndaw ñi te loolu émulation bu am solo la. Mhm. dama lay fàttali ni 2014 moment bii ñu toll avant élection yi amuloon kenn ku waxoon ni candidat la en 2014 amuloon candidature bu déclaré moment bi ñu toll. tey jii euh, bañ demee ba candidature yi déclaré benn jeune moo ci amoon muy Bara Gaye. Mhm. yàlla dogal askan bi seppi ko dénk ko. mu doxal ko doxalin boo xam ne bi bu ñu xoolee émulation bu mu am ak jeunes yi tey déclaration de candidature yi am yëpp mat na quinze wala vingt ñëpp ay jeunes lañu alhamdulilah kon loolu moom intéressé na ndaw ñi à la chose politique. kon dafa nekk yoon bi daal dafa xàll yoon bi. Mhm. dafa xàll yoon bi te loolu lu ama am solo la. Mhm. léegi nag euh, malheureusement ñun ñi ñu jàkkaar jàkkaar lool du ñu du ñuy wax dara suñu bilan ndax xam naa ne mënuñoo attaqué suñu bilan. lu ñu wax dara suñu doxalin parce que xam naa ne amul luñ ci gis. Mhm. ci diffamation la ñu nekk ci sos ci jaxase ak leneen ak leneen moo tax ñun amuñu jot boobu. Omar Sow mi ngi def ay jéego foofu de. waaw mais Omar Sow ku ma ku ma respecté la ci ci courage wax dëgg yàlla euh, bokk na ci parti euh, yox yoxiwul il affiche ses te wax dëgg yàlla dama ko ci encouragé. parce que jeune la mi ngi topp seen tànk de. parce que jeune la xam mm-hmm. nga Bara Gaye il été Sénégal bu ko xamee ci wàllu promotion de la jeunesse lañ ko xamee ndax UGTEL la yoroon bi mu nekk ministre conseiller moom la euh, Ablaye Wade doon déglu ci lépp lu muy def jëmale ko ci ndaw ñi. Mm-hmm. moom daf ci bokk ci li mu gëm xale yi nañu fexe ba fu ñu nekk nañu affirmé wu ñu ànd ak moom wala ñu ñàkk ànd ak moom mhm. ci boobu élan rek laa koy laa koy la laa nawee euh, Omar Sow moom ci vraiment courage bi mu am mhm. nekk na ci parti ku ne di kii mu wax ni man damaa bëgg te loolu dafa am solo xam nga ah, bu njëkkoon am na yeneen kàngam itam ma ne bu njëkkoon mhm. les jeunes dañu jàppoon ni fer de lance rek la war a nekk ci biir parti bu xeex jotee ñoom ñoo war a xeex bu xuloo jotee dañu war a xuloo waaye bu investir jotee dañu war a bàyyi mag ñi dem tax na ba xale yi xam ni ñoom dañoo war a a gérer pourquoi pas non seulement gérer na na ndax xamoon na ni mandat bi c'est le de la jeunesse bu ko échoué bépp ndaw bu soxlaati fii dara dina la jafe waaye bu ko réussir mais xal na yoon pour bépp ndaw pour nga pour pour nga mën a laaj te loolu moom mooy li am tey ba ci ay mouvement associatif ay jeunes Euh, yoo xam ni vraiment ils sont dans l'anonymat mhm. dañuy xëy ne dañoo bëgg a nekk maire kon loolu jàpp naa ni mooy réussite bi ëpp solo ambition quoi bi nga xam ni Bara Gaye def na ko mhm. ak aura bi nga xam ni yóbbu na fa yëmbal sud mhm. ba tey jii wax dëgg yàlla euh, te loolu euh, li koy firndeel génn nañ sax daanaka ci cadre parti au niveau de yëmbal sud dama lay wax rek mutation yi nga xam ne Bara Gaye indi na ko fa ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam ñëpp ñu sax waa PDS bari na ci ñoo xam ne vraiment dañ koo gëm Euh, gis li muy def naw ko ci loolu pare pour topp ko parce que yëmbal dañoo gëm ni maak ñi ma àndal samay junni morom mhm. yëmbal dafa toll ci ayam fi nga xam ni foofu la cees tolloon ak Idrissa Seck ba cees bàyyi woon lu ñu jàppoon yëpp topp ko ba mu indi leen li mu leen indil tey Fatick toll fa waa Fatick lu ñu jàppoon yëpp ñu bàyyi ko topp Macky Sall ba mu nekk tey président de la République yëmbal du ñoo sentir ni mhm. noo loolu euh, suñu ay jot na lépp lu ñu jàppoon dañ koy bàyyi topp ci Bara Gaye ndax nag mooy le candidat yëmbal waa mhm. sànq wax naa la ko Kilikoro boo fa demee dañ la naan Bara Gaye maire Yëmbal. kon yow dëggal nga ne xaat moom day présenté waat. non non en loolu moom ñun ñoo ko koy obligé ala kulli àll moom ba léegi il pas prononcé sa carte sa <laughs> waxul ne dafay kii mais vraiment loolu dafa am idéal bu mu ñu woo ñun te mënu koo trahir idéal bi mooy lan ñun fii lañ juddoo yaroo fi màggee fi lu ma naqari moo leen naqari yéen ñëpp. mais bu ñu ko defaralul suñu bopp kenn du jóge feneen duñu ko defaral mhm. nañu takk suñu tubay fexe ba lépp lu fi manqué woon ñu am ko mhm. ba li nga xam ne loolu lañ doon jooyante suñuy rakk suñuy jarbaat suñuy doom ñu ñu ñu jóge sa mhm. mais loolu jeexul loolu nag feek jeexul moom mënul wax ni mënul nekk candidat ndax woon nañu ci ba pare projet boobu dañ koo approprier yem ceeg moom leneen li si topp nag mooy ah euh, combat bi mu laaj mhm. ak taxawaay bi mu laaj waxuma la ñun waaye yëmbal waaye sax ñoom ñëw ci jiitu ndax wax dëgg yàlla xaja ñun ci ku dul suñu borom xaja xajaluñu ko mhm. suñu diggante objectif boobu mhm. ak fu mu mënti jóge moo xam opposition moo xam du pouvoir ak fu mu mënti jóge loolu ñun suñu mbir la ñun waa yëmbal dañ koy doxal suñu bopp ba mat sëkk incha allah mais dégg nañ la nga ne ba Kirikoro war nañ xam Bara Gaye envergure nationale ndax am Bara Gaye kon xanaa dafa jóge PDS war a sanc boppam euh, xàll yoonu boppam Balla Gaye ba muy taxaw euh, Maris Ndiaye di prêter serment di jiite UJTL boobu la am envergure nationale euh, rawatina mu ñëw nekk ci nekk vraiment euh, njiitu ndaw parti au pouvoir loolu du poste bu ndaw def ci jéego bu am solo def lu tour du Sénégal waaye teewul mu am taxawaay bi nag di xeex nekk au combat. Mhm. loolu moom moo waral Sénégal yëpp ràññee ko. waaye li ko Sénégalais yi gën a nawee mooy bi nguur gi daanoo. ñu bëri kàngam yu bu ma sañoon ne ñëpp. ci biir hmm. parti démocratique sénégalais. kenn ku ci nekk da ngay jël sa yoon ñu nangul la ko it. ñii sax dem nañu fekk président la république ci ñu ëpp moom mu bokk ci ñi nga xam ne ñoom la président gën a soxla mu toog ne man mënumaa bàyyi Ablaye Wade ndax lu ndaw hmm. li mu ma defal. Hmm. ñun ñoo ko ndawal mais moom da koo rëyal rëyal ba kenn mënul wax ni mu toll. ndax moom li am Wade defal ñi dem mu ëpp téeméeri junni yoon li mu ko defal waaye loolu fees na bëtam ba jàpp na ni bàyyi politique moo ko gënal bàyyi Ablaye Wade kon euh, envergure nationale boobu li ko ko may mooy taxawaay Euh, bi mu amoon ci biir parti démocratique sénégalais en tant que euh, jeunesse. Mhm. mais aussi taxawaay bi mu am en tant que maire nekk le maire maire. parce que vraiment li mu fi am ci ay distinction ci en tant que meilleur maire en termes de réalisation meilleur leader jeune et cetera kenn mu laax ni mu toll. Mhm. kon dafa fës ci li mu liggéey. waaye tamit fës ci ci charisme bi nga xam ne bi yàlla suñu borom may na ko. Mhm. loolu moo ak aussi euh, taxawaay bi nga am ci bi mu am ci ngor. gore ni damay toog ci ki nga xam ni perte nag pouvoir. Mhm. dama lay fàttali nii Bara Gaye mi ngi dugg ci euh, ab lay Wade en 2011. mais looy wax ci ñi koy annoncé APR ba pare. 2011 la dugg ci état bi. 2012 mhm. gouvernement bi daanu. deful ci état bi lu mot un an def na ci biir opposition ak Abdoulaye wadd ñaata at depuis 2012 ba léegi kon jàpp naa ni li muy toppee ni ak li muy jàppee ni ay valeur la waaye du leneen alors euh, li may tontu ñooñu mooy wax ju bon dëkkul fu mu fu mu fu mu jëm fu mu jóge la cosaanoo mhm. nañu nañu bàyyi loolu euh, te li ci du ma ci tontu lu weesu li ci Bara Gaye tontu nee na loolu ku guddul fan trop doo ko fekkee nee na. maanaam génn PDS dem dem dem dem dem rallier APR. Mhm. ku guddul fan trop doo ko fekkee yemul ci loolu nee na Karim Meïssa Wade bàyyi Ablaye Wade moo gën a yomb moom mu bàyyi ablaay Wade kon wax vraiment dafay jeex te lii ñu koy ñu koy waxal yàgg nañ di ko wax yàgg nañ di ko wax mosuñu ko ci gis. moo tax nag ñun dañoo jël décision dootuñu tontu ci loolu parce que xam nañu ni stratégie adversaire la adversaire bi li mu bëgg mooy di ñu divertir di ñu tardeel ndax Sénégal opinion bi dañu war a changer ni ñuy doxalee ni ñu doxalee mooy opinion bi dafay dox comme cours de répression et de l'enrichissement illicite yaa ngi mhm. fàttaliku euh, cours d'exception boobu nga xam ne ñu la tuumaalee yow mi ñu tuumaal yow yaay dem indi preuve nii li ma liñ ma tuumaal du loolu suñu opinion tey dafa mel ni noonu la mel maanaam bu ñu tuumaalee nit au lieu ñu laaj ka ko tuumaal lan liñ ko tuumaal foo ko teg mais ñëpp dañuy daw ci nit ku ñu tuumaal di ko ne mm. ah yow ndekete lii nga def yow fee nga dem nga nekk fa nag jël sa temps suba ak ngoon guddeeg bëccëg di teg tuuma balaa moo set mais bay woy mbuus ñun loolu la ñu xam da jàpp ni mbir mi seen biir kër lañ ko toggee mais ñun xam nga déjà euh, ci opinion bi laa nekkoon ba ba ba léegi mm-hmm. opinion bi ba léegi kenn mënu laa wax ni information bi diw moo ko joxe dañ ko gis ci ay toile ay réseaux sociaux nit ñi di ko diffuser te kenn assumé wul paternité bi ñun xam nañ fa mu jóge xam nañ fa mu jóge bu baax a baax te dañ ko dinañ dañ ko lijjanti le moment venu mais opinion bi dañu war a gën a yokk seen taxawaay. Mhm. di gën a exigeant par rapport ak ñi génnee yenn information bi. Mhm. boo génnee benn information nañ la exiger yow nga génnee say preuve waxal yow fi nga wax ni foo ko teg du photo bu ñu gis du document bu ñu gis du vidéo bu ñu gis du audio bu ñu dégg. loolu wax dëgg yàlla légèreté la boo xam ne ñun bëggatuñu mhm. di perdre suñu temps di wax ci mhm. loolu quoi. mais comité mbirum euh, élection yi nga xam ni teg nañ ko biir partie démocratique sénégalais gis ñu si Bara Gaye itam bokk ci comité loolu itam lan lay wone parce que ñu ngi koy xaw a beddi ndax beddi woon nañ ko ci li nga xam ni moom lañ doon amal fii ci permanence bi ak coow li si juróon yëpp kon mu ngi mel ni Bara Gaye ñu ngay kay xaw a néewal ci biir parti bi itam. xam nga yàlla dafa dogal man dara tënkuma ci PDS. Mhm. li ko waral mooy man euh, je le directeur de cabinet du maire. idéal bi ma la wax sànq ni boobu la ñu baaragay woo moo ma booleeg moom ak parcours ak jaar-jaar démb. Mhm. Euh, ba tax na euh, damay wax ci turu ki ma doon en tant que directeur de cabinet. Mhm. mais du ci mën a sori parce que damaa ñeewantal baaragay ndax ma ñeewantal ko mooy. dama xam fu ko ab Ablaye Wade toll. dama xam fu ko parti démocratique sénégalais toll. bokk ñu parti démocratique sénégalais moo ñu ci boole ndax ñun fu mu ñu joxoon ni fii mooy suñu njëriñ dañuy dem ànd ak moom te bari na biir yëmbal dama lay jox benn exemple élection législative yi ñu passé bi ko Abdoulaye Wade defee tête de liste départementale mhm. mais yëmbal dañoo jóg comme un seul homme dem voté li ko la mu am ci ay voix ëpp na mille voix loolu moom xam na ni lii du waa PDS kese kon mhm. waa yëmbal la kon waa yëmbal ku leen sagal mën nañ laa delloo boobu bor ba mu mat sëkk mhm. moo tax vraiment ay Euh, def naa opinion bi dinañ juger ci loolu. bu mhm. fekkente ni Bara loolu la mérité ci biir PDS. Mhm. non yaakaar naa citoyen bu ne war ngaa xam ndax loolu la mérité wala mérité wu ko. Mhm. ne serait-ce que taxawaay bi mu amoon bokk na ci les derniers combattants balaa régime bi di daanu. rawatina taxawaay bi mu am après bi régime bi daanoo mu jaral ko mu dugg ci kaso mu jaral ko lu ne. tey jii bu ñuy def. ay mbir di écarter Bara Gaye hmm. moom vraiment dafa dafa oh dafa salte hmm. man vraiment loolu su ma ci sori dinaa dama ko ci ménager moom laa ci xool ah parce que buggul ku wax dara PDS buggul ku wax dara lu égrate nit ñi lu jëm ci Ablaye nekkul lu rafet daal nekkul lu rafet mais man rafetluwuma ko hmm. jàpp naa ni bokkul ci lu mu mérité gis naa sacrifice yi mu def au au de sa famille au prix de de de au prix de son temps gis naa sacrifice yi mu def pour Karim Wade yi mu def pour Abdoulaye Wade pour PDS. Hmm. kon tey bu ñu ci toll fii ak lu mën a xew jàpp naa ni opinion bi dinañ ñu àtte ëllëg hmm. incha allahu rabbi kon question boobu damay bàyyi opinion bi ñoom ñu tontu ci plutôt que man ok foofu nag la ñuy daal di ndar képpee li nga xam ne moo jëm ci waxtaan bi euh, ñu bàyyi la rek kàddu gu mujj gi nga daal di gërëm donc euh, ñun amoon nañ mbégte lool dalal la ñu daal di waxtaanee commune bi nga xam ni moom moo di yëmbal sud waaw jërëjëf Memba dama lay sant di la gërëm bu baax a baax ci invitation bi. Mhm. di dellu di gërëmaat askanu Yeumbeul Sud bu baax a baax ci euh, confiance bi nga xam ne bii accordé nañ ko monsieur le maire Bara Gaye depuis le début du mandat ba tey. Mhm. di leen wax ni yéeneem ak euh, ambition am ak euh, énergie bi mu amoon démb ak barki démb bala moo jël mairie bi sax. Mhm. bu ko raw la amee tey. Mhm. Euh, bëgg na yóbbu yëmbal sud fu ko kenn mësul yóbbu donte egg nañ fa. waaye mhm. doyalu ci. Mhm. ñun dañoo jàpp ni euh, yëmbal dafa aaye comme ni ma ko waxee léegi. Euh, dañoo bëgg benn leadership. boo xam ne bii dafay imposer wu au niveau national. Bara yi ci kàttanam góorgóorlu na ba tey yëmbal bokk ci carte électorale du Sénégal. saa yu ñu woteetee ba ngoon yëmbal sud bokk na ci ñëpp di bàyyi xel. lan moo nan nan la fa demee mhm. kon loolu suñu chance la suñu ay la mhm. bëgg nañu vraiment askanu euh, yëmbal si taxawaay ba ñu taxawoon démb ak barki démb mhm. ñu continuer di ko taxaw leneen li Bara Gaye réussir mooy fexe na ba yëmbal si du nekk euh, commune bi nekk loo xam ne bii lu inclusif la pour la première fois toutes les forces de la commune pour la première fois diversité yi fa am yëpp ñu gis seen bopp ci mairie bi du imaam yi du bàjjanu gox yi du délégué de quartier yi du relais communautaire yi du murit yi du layen yi du tijaan yi ba ci chrétien yi muy àndal di dox euh, Popenguine mais ñëpp fexe na ba jege leen sportif yi. beddiwul kenn daal beddiwul kenn te loolu loolu vraiment modèle de gestion la boo xam ne dañ ko war a jàngale. Mhm. donc euh, gis naa ni yëmbal gis nañu saa yu baara taxawee dañ gis ci gis seen bopp ci moom ndax ñoom ñoo ko meññi. Mhm. mu juddoo fa yaroo fa amul fu baara gay di dugg benn quartier te du jaar ci turu nit ne ko diw lii lañ seqoon wala leneen ak leneen kon doomu yëmbal la. Mhm. loolu moo waral ambition bi di déborder. kon vraiment jàppale bi ko doon yàgg jàppale ñun gis nañ ko Euh, dañ leen wax ni dañ leen euh, dalal seen xel rek ni mhm. monsieur le maire Bara la mu am ci ambition ci yëmbal démb tey la gën a tey la gën a tey la gën a rëy vraiment di la santaat di la gërëm bu baax a baax euh, di la jox rendez-vous na beneen yoon la bi lu yàggul dara incha allah dinañ leen woo ci suñu présentation livre bilan bi mhm. waaye tamit suñu inauguration wu centre commercial Al Maktoum bi ñu koy gërëm di ko sant Abdoulaye Sagna nekk directeur di Bara Gaye nekk bokk moomeel bu yëmbal le sud ñu amoon mbégte gu yaay itam dalal ko ci émission gox bi fii ci rajo Rewmi FM kon boog dañ koy sant di ko gërëm bu ko bu baax a baax jox mbokk yi dig daje beneen dimanche beneen invité fii ci émission gox bi ci rajo Rewmi FM